sëriñ Madiba Silla mi ngi gane àdduna ci atum 1887 wala 1888 ci dëkk bu tudd ñaaxal ñaaxal nag mi ngi ci wetu dëkk bii di Kilmaxa juróomi moo dox ci diggante ñaari dëkk yooyu moom sëriñ Madiba Silla maamam bi jur waa waajuram lañ ko tuddee muy sëriñ Moodu Ibra Silla waajuram wu jigéen di sëriñ Madiba Sylla mi ngi tudd soxna faati Mané Diop waajuram wu góor mooy sëriñ Maxtaar Mareema Sylla sëriñ Madiba Sylla ñii la bokkal waajur wu jigéen di soxna faati Mané Diop soxna maam Njaxat Sylla bokkoon ci waa barsàq ñi ak sëriñ Maxtaar Sylla bëkk néeg sëriñ Maxtaar Sylla mii nag bëkk néeg la woon ci kërug njaareem gi ba fay seexul xaddiim di nekk sëriñ Madiba Sylla ginnaaw buñ ko duppee maamam ji bi matee dal lii di njàngum alxuraan ca daaray waajuram la dale lii di alxuraan muy sëriñ Matar Marema Sylla moo ko jàngal alxuraan ak xam-xam bam géeju ci lool kii di maamu sëriñ Madiba Sylla di sëriñ Modou Ibra Sylla wëllëreew maam Mor Anta Sali Mbàkke la woon ba tax na ñoom ñaar kenn ku ne daana seeti moroomam ca fa mu nekk Mamor Anta ñëw na ay yoon ci dëkk bii di ñaaxal ànd ak sëriñ Touba Seexul Xadim suñ mësaa ñëw dëkk bii di ñaaxal Mamor Anta ak sëriñ Touba Seexul Xadim bu Mamor Anta Sali di waxtaan ak sëriñ Modou Ibra waajuru sëriñ Madiba Silla di sëriñ Matar Mareema Silla mi day ànd ak Seexul Xadim ñoom ñaar ñu dem ca tokkoorum ñàmbi ba toog fay waxtaan ci wàllu xam-xam kon diggante ci la ak Mbàkke ba dara xewagul kóllëre moom yàggoon na ci seen diggante waaye seexul xaddiim nekk nit ku ràññeeku ci ndawam sëriñ mataar mareema silla miitim nekkit ku ràññeeku lool ci ndawam ba tax na daana julli bañ koy wooye mataar julli wóllëre woowee nag seexul xaddim sàmm na ko ba bi lépp xewee ba dem ci géej gi ba ñëw jaar na ci dëkk boobu di ñaaxal ba tey sax ci wàllu kóllëre googu sëriñ Moodu Ibra Silla moomu sanc na ab dëkk bu tudd Ndindi buggul soriwul dara dëkk bu tedd bii di tuubaa kóllëre ga Maam Mor Sali amoon nag sëñ Moodu Ibra moomu seexul xaddim sàmm na ko ci doomam ji nga xam ne ni ñoom ñaar amante woon nañu ay kóllëre muy sëriñ maxtaar mareema silla ba tax na fekk na ko ay yoonitim ci dëkk boobu di ndindi ndindi googu sax xasida gi sëriñ tubaa bind mu tudd nuuru daaray ni fa la ko tàmbalee binde ca garab ga fa nekk di ak guy guy ga ba ga ni ma nga fay dund ci jamono ji ñuy wax ak yéen guy googu sax soo fa demee reen ya suuluwul ma ca bitti te dafa mel na sax reen yi dañ koo létt guyug ziyaar la mu ngi foofu ci ndindi fa la seexul xaddim tàmbalee binde xaside gi ñu tuddee nuuru daaray ni kóllëre googu itam seexul xaddim sàmm na ko ba boole na soxna njaxat silla ci waa sàq ñi te soxna njaxat silla mi ak sëriñ ma Madiba Silla ñoo bokk waajur wu góor ak waajur wu jigéen bi Maam Mor Anta Sali Mbàkke làqoo ba sëriñ Touba seexul xaddim woote lii di yoonu murit ba am ay xat-xat ak tubaab bi ba dem ci géej gi ba ñibbisi ci 1902 nag bi mu ñëwee ginnaaw bu mu delloo ndar ba giseek tubaab bi ba noppi jaar bari jàmm siise fanaan fa ñeenti fan ci weeru koor gi jóge fa ñëw sànnoo si woore fa ba koor gi jeex dëkk bii di ñaaxal nag la ñëw jaar fa ngir seet si wala réem ba soppeem ba sëriñ Matar Marema Silla mi waajurub Cheikh Madiba Silla kon mën nañoo jàpp ne ci finwu décembre 1902 Seexul Xaddiim ginnaaw bu mu jógee Sànnoosi am na fukki fan ak ñaar ci dëkk boobu di ñaaxal ñu bari ci njàmbur foofu lañ ko fekk jébbuloo fa foofu itam la giseek seex Madiba Silla mu toll ci fukki at ak juróom fa la jaayanteeg ku tedd ki di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba fa sëriñ tubaa bàyyi ko la jaar ca magam ja kër sëriñ mbàkke maane ñëw daaru salaam dem daaru marnaan amaat ay jafe-jafe ak mbaaxaan demaat gànnaar ca demu gànnaar googe kii di sëriñ Madiba Silla bind na lettre seexul xaddim ngir fekk si ko gànnaar seexul xaddim nanguloon na ko ma Madiba Silla gànnaar googee sëriñ Madiba Silla nekk na fa ba ni fa seexul xaddim jóge moom sëriñ Madiba Silla cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ñoo daa bokk benn néeg bu ñuy fanaan kon bi sëriñ Touba jógee gànnaar ñëw ca yéen cheikh Madiba Silla itim dafa ànd ak sëriñ tubaa seexul xaddim ak cheikh Modou Moustapha ak mu dul faadal ñu ñëw nekk ca yéen ci jolof ca yéen googu fa la leen seexul xaddim waxee nañ dem Touba te nekkal ko fa kon bi sëriñ Madiba Silla ñëwee Touba jóge ca yéen ci ndigalul seexul xaddim ànd ak cheikh Modou Moustapha Mbacke fi ñuy jullee it foofu la këram nekkoon ba bi ñuy nattaat Touba ci 1960 lañ ko jooga jox ci kër gi jàkkaarloog bayti waaye sëriñ Madiba la teel a nekk nit ku ràññeeku ci wàllu diine ci wàllu xam-xam ba tax na sax ci ndawam daana wax lu baree baree bari lu egseegul mu di ko junj wax nañu ne ngërëm li tax mu am ko mooy daa wax ne Cheikh moodu Moustapha dana am ñaari doom yu taal ab jant tax na Cheikh Madiba Sylla jot ngërëmam mu dellu nag ca dëkkub cosaanam ba di fi nga xam ne nii moom mooy ñaxal ba mu fa defee ab diir ci dëkkub cosaanam boobu di ñaxal la dem nag ca dëkku waajuram wa nga xam ne sancoon na ko di ndindi mu sanc fa ca wet ga ab dëkk dëkk baa nga tudd ndindi ginnaaw ndindi googu sanc na dëkk bu tudd ceew ginnaaw ceew sanc na daaru raxmaan sanc na itam fu ñuy wax san dëtu sanc na fu ñuy wax ndóofaan murit sanc na fu ñuy wax daaru rasaax sanc na dëkk bu ñuy wax rujuj bi Cheikh Modou Moustapha di fondement jumaa ji moom Cheikh Madiba Sylla àddiyee yam joxoon Cheikh Modou Moustapha muy àddiyee gerte la ko Cheikh Modou Moustapha wax ne jumaa ji de dama ko bëgg a tàmbali waaye ñaq wu lew laa koy tàmbalee te sa àddiyee ji lew na moom lay def mu njëkk ci jumaa ji xam ngeen ne sëriñ tubaa seexul xaddiim bi muy dem ci géej gi fas wam waroon ngelamu la ginnaaw bu mu jógee mbàkke yi jaar jéemul jaar kokki yendu Louga fala fas wawu di ngelaw moo desoon kii di maam Thierno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru mii rakki seexul xaddiim lañ joxoon fas wa mu yor ko faswa nag cheikh moodu moustapha mbakke la ko maam ceerno ibrahima faati mujjoon jox cheikh moodu moustapha mbakke sëriñ madiba silla la ko mujj jox fas wa ndindi la nekkoon ba ni mu làqoo ngir faswa ni mu tedde woon ni sëriñ Madiba Sylla fonke woon seexul xaddim ak lu ko laal ba tax na kenn la jëloon ca dongaam ya ngir muy sàmm fas wa fas wa ab mbaar lañ ko defaroon mu tudd wudd wudd ba saa bu ñu xëyee dañuy lay suuf sa bam set wicc fas wa ci ndindi lañ ko denc kon ku bëgg a xam fas wa fu mu nekk soo demee ndindi ñu wan la fañ ko denc sëriñ Madiba Sylla bari na ay yu ñu koy wooyee ndax daanañ ko wooyee sëriñ ndindi sababub sëriñ ndindi bi nag mooy maamam moo sanc ndindi daanañ ko wooye wooyee Madiba Silla daanañ ko wooyee Ahmadou Ba Silla waaye seexul xaddiim moom Ahmadou Silla la ko daa wooye bi seexul xaddiim jóge ca yéen te war a dem njaareem bi mu jaaree kàdd booloo ñëw jullee si timis daaru marnaan war a fanaani ndaam juróom ñaar ña doon gàttandu seexul xaddim ngir yoral ko bagaas ya seex Madiba Sylla mi ca la bokk seex Madiba Sylla ñu ngi ko gëj a gis bisub dimanche ñaar fukki fan ci mois de février ci atum 1983 seex Madiba Sylla ñu ngi ko gëj a gis dimanche ñaar fukki fan ci mois de février ci atum 1983 mu ko dibeer juróom-ñaari fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1403 ci gàddaay gi dibeer juróom-ñaari fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1403 ci gàddaay gi sëriñ Madiba Sylla am na ay màggal yuñ koy defal màggal gi ci jiitu nag mooy gim daa defee daaru rasaax moom ci boppam moo joxoon ndigal benn taalibee mu di ko màggal màggal googu nag amul woon bis buñ koy date ci at mi saa bu buñ ko jàppee rek lañ koy màggal am na geneen màggal guñ daa def ci nduufaan nekk ci siin muy ñetti fan ci weeru baraxlu dëppook bis bi sëriñam ba cheikh dul Moustapha Mbakke génne àdduna daana ko taxawul boppam am na beneen bisit buñ koy defal ci Touba mooy juróom-ñaari fan ci rakkaat di gàmmu di bis bi mu génnee àdduna ci këram am na beneen bisit buñ koy defal ci saxadatu mooy ñeen fukki fan yi ginnaaw bu mu génnee àdduna kondaal ñeenti màggal yi lañuy defal kii di Cheikh Madiba Sylla ay xalifaam nii la tëddee caatu 1983 ba 2004 Serigne Cheikh Sylla moo ko wuutu 2004 ba 2004 ci lu tollu juróom-ñeenti weer Serigne Bassirou Sylla moo ko wuutu 2004 ba 2009 Serigne Bara Sylla moo ko wuutu 2009 nag ba nëgë ni Serigne Dan Sylla moo fi nekk. ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax mu taxawu waajur wa te sut waajuram wa aw fan te gën a taxawu njabootug Cheikh Madiba Sylla ñu bari ràññee nañ ne njabootug Cheikh Madiba Sylla dañuy tëgg lii di ay ndënd ndënd yi bi mu nekkee gànnaar ak seexul xaddiim ak mu du Moustapha ak Cheikh Modou Fadal naari daanañ tëgg menn xeetu tëgg moo xam ne nii daal neexoon na ko lool ba tax na bi ñu ñibbisee gànnaar ba ñëw Sénégal sàkk woon na ci seexul xaddim ngir mu jox ko ci ndigal mu koy tëggal tëgg moomu tëgg na ko nag ci kanamu seexul xaddim te dara xewul waaye tëgg ma maytim dafa amoon fu mu yem mooy ci gaajo kese la yem gaajo nag xeetum tëgg la moo xam ne nii ñi bu baax galañu sabar xam nañ ko tëgg na ko itam ci kanamu Cheikh Modou Moustapha ay yooni yoon bi ñuy inauguré raay bi tëgg nañ ko ca keroog inauguration ba ba ñu bari jël rajo ya fa ne woon ne nañ bàyyi tëgg mi ndax poussière bi mi ngi sonal sëriñ bi ca la am ñu waxe ca biir mbooloo ma ca kanamu sëñ ba ne poussière bi de ku mu dugg sa aajo mën naa faju ba tax na ñi yaakaar Cheikh Madiba Sylla te miin kër googu bu baax a baax a baax a baax ñaare seetlu nañ ne ku dara masaa dal tëgg moomu daañ la wax ne demal ronu ko Cheikh Madiba Sylla itam daana wax ne tëgg mi de bu fekkee na nam ware rek ni lañ ko yemale mën naa gunge am néew waaye nag mësuñu cee gunge am néew ci nekkinam kon loolu mooy sababum tëggum waa kër Cheikh Madiba Sylla ka seexul xaddiim daa wooye Ahmadou Sylla doomu sëriñ Mataar Mareema Sylla ja ak soxna Faatimaane Jóob ja yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu